xar moom xar moom ren moom xam naa si dara dina cher parce que xar moom amul wax dëgg yàlla ci ñun ci ñun moom lu ñu gis xar amul ndax lan feebar bi fi jaaroon téye na gaa yi xar ki doon yar xar jaratul xar affaire yi daal métti na quoi xar moom ren moom wax dëgg yàlla man de gisuma xar bu bari parce que lii yàgg nañ si trop si lii nañuy yëngu bu baax a baax mais gisuñu xar yu bëri. xam yëpp si état la état moom bu bëggee xar yomba dana mën wax dëgg yàlla dana tout pour xar dugg Sénégal dugg xar bañ dugg fi moom musiba la si ñëpp ñun sax musiba la si ñun xari nañ ñëw ku nekk parce que ñëpp tolloo na ñoo xam ne moyenne bi dana am am na ñoo xam xar yu mag nañ mën jënd ñu dugg fi di ñëw wut si xar am na ñoo xam ne dañuy ñëw fi wut si xar ku ne daal wax dëgg yàlla na état bi yombal affaire yi xar ñëw ñëpp am ngeen am xar tabaski daal la plupart xar yi exemple di nga dégg ni ne diw ni la xarim dafa seer xar yi seeruñu xar mu nekk ak njëgam fii boo ñëwee sax ñu te teg xar yu yem yaa ngi boo demee côté bi xar yu mag yaa ngi fi nekk parce que xar yi moom mënu ku nekk xam na xar mënu yomb bu njëkk ñu daan jël ripaas 100 francs wala 125 wala 75 francs tey ñu ngi koy jënd 250 waaw tellement lépp a cher dugub mboq lépp a cher même xar mi nga daan jënd 100000 léegi boo demee 200000 ngay jëndee xar yi fi ngay jëlee moo cher te da ngay yor xar te xar yi un an la yor sunu kër yi chaque jour nga leen dundal di sang di pigi di jox lekk di jox naan kon loolu lay dem rek mais xar yi cher yu yenn cher yi boo am na fu gën seer xar fii xari macha allah boo ñëwee loo am rek di nga am xar. non xari nag pour instant nii xari nag ñëwaguñu bu baax waaye xari fii ñu ngi commencé cent ba un million cinq cent mi ngi fi waaw sans dépendre si qualité xar mi nga bëgg quoi. waaw xanaa ñoom ñu topp si ñu mag rek ñu mag ñi tamit muñal xale yi ñun man ma ngi président point de vente loolu ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ xanaa daal di ñaaxaat xale yi rek ñu teg ku nekk teg fii ku nekk fi ñëw kon li may wax xale yi am yar am teggeen rek. su client ñëw ñu naxanteeg ñoom ku ñu mën jaay xar jaay xar ku mënul jaay xar mu dem si keneen mu jaay xar.